day bëgg dugg nag ci waxtaane mbirum jëmmi dee ci boppam ak na mu toll mu ne jële nañ ci ngën ji mindéef mu ne ba yàlla sàkkee dee dafa jël junni junni kiiraay làqe ko ko ba mindéef yi duñ ko séen te dee moo gën a rëy asamaan ak suuf boo leen boole woon li ñuy rëy rëy dee moo leen di gën a rëy yàlla fab nag juróom-ñaar fukki junni càll la yeewee ko dee te benn càll la bu ca nekk rek gudde na na doxub junni at ba doo door sàkk dee noonu la ko defoon nga xam ne làq gam ko làq ci kiiraay yooyee tax na malaaka yi duñu ko jege duñu xam fu mu nekk waaye teewut nag ñuy dégg kàddoom saa yu ñuy dégg rek kàddoom kon yàlla sàkk na dee mu réye noonu ñànge noonu mu yeewe ko càll yu bari yooyu waaye nag malaaka yi dañuy dégg rek kàddug dee waaye xamuñu woon fu mu nekk gannaaw bi yàlla sàkkee aadama nag daa daldi dafa daldi am malaaka ne ko deemeekat yow laa ko féetale yaa ko yore malaaka ma moo tudd Asraayil malaaka ma ne ko waaw saa boroom luy dee dee mi ngay wax naa mën nga koy féete maa ko yore lu mu doon yàlla daal di wax kiiraay yooyu nga xam ne ñoo bari woon làq dee ba kenn mënu ko woon seen bari woon bari ba mat junni junni kiiraay yàlla ne kiiraay yooyee muriku leen ba set wecc ba dee ne fàng